Euh, bu ñu ñëwee ci sketch yi. Mhm. bien que est-ce que sax bu nekkee yaa ngi TFM ba tey est-ce que am nga droit def sketch teg ñu teg ko ci yeneen télé ak say groupe parce que tamit Père bu Xar kenn ko gis wala mu dugg ci yenn sketch yi mu dugg ci yenn série yi am yi jàll ci télé bi. Mhm. man li ma am li ma war a def. par exemple gis nga bu ma tourné série ba pare. Mhm. wala defar benn série ba pare dama koy jël yóbbu TFM. bu ma yóbboo TFM ñoom ñu xool ko ba pare buñ ko nangoo buñ ko jëlee mu daw ci tele bi mais buñ ko rejeté ne bëggunu tele bu ma neex yóbbu ko fa du gis nga bàyyi ganaar du gis nga bàyyi ganaar mm-hmm. te bàyyi ganaar bi dañoo defar produit bi ba pare jël ko yóbbu TFM bàyyi ganaar dañoo defar produit bi ba pare jël ko yóbbu TFM pour muy daw TFM moom Buuba Nduur ca boppam ne du fi daw da gis na ni per mooy acteur principal ba Buuba ne du fa daw ba Buuba ne du fa daw man ba producteur bi woowee Kader ne ma ah yóbbu nañ ko TFM kat mais rejeté nañ ko nee nañ du fa daw ma ne ko télé Gambie sax bu ko yóbbu ko fa fu la neex yóbbul mu daw. ci ko jël yóbbu RTS muy daw bu ma defaree beneen film bu ma defar moom wax dëgg yàlla comme TFM laa ne ba léegi lu ma defar ba pare aw ma droit yóbbu ko benn télé di leen ko proposé li ma am droit mooy jël ko yóbbu TFM parce que nag xam naa li ci contrat xam naa li ci kayit dama koy jël yóbbu TFM ba pare wan leen ne leen ah man kat defar naa lii xam nga ma la bu ma defaree lii ba pare. kat mi ngi nii indi naa ko bu nu xoolee dugal ko ci télé bi mu daw ci tele bi mais bu nu ko xoolee bëggunu ko waa danaa danaa defaru produit bi def ca xaalis bu bari ba pare jël ko di tojate di yàqate du ma ko def dama ko beneen télé laa ko yóbbu mu daw fa noonu laay def man mësuma def dara amul lenn ndax xam nga tamit nit dangay jox cër nit man même bu ma voyagé dem naa dem naa ba Espagne dem naa ba Espagne li may wax Aziz ñaan doy na ma seede tan bombe ki ne sow doy nañ ma dem naa ba Espagne moom Aziz ñaan ci boppam Aziz ñu am lu ñu waroon a tourner foofu ci Espagne benn série ñu war ko tourner ba ma Aziz waxee dama ni ko man bala maa def dara ci série bii nii jëlal sa téléphone nga woo Ndiaga Ndour yaa dégg de ma ne ko wool Ndiaga Ndour téléphone ba pare bu ma joxee accord ne ma per tourneel rek nu tourné te noonu la deme daa woo njaga njaga jox ko accord am woo ma ne ma per moom mën nga tourné ma tourné man amul lu may def billahi barke yonent bi amul lu may def ci Sénégal di ko tourné te woowuma njaga nduur avertir ko moom mooy directeur télé ba damay woo njaga avertir ko ne ko ah man kat dama amoon benn kii nangam nangam kërëb kërëb bu ne ma sax xaaral waa ji ma koy tourné loo ma naan ko ah may ma tuuti kat xaaral ndax woo naa sama directeur nee na ma naa xaar tuuti. dégg nga bi bu ma joxee accord ne ma tourneel ma tourné bu ma tourné ba pare bala ñu koy yóbbu fen dama koy jël yóbbu TFM ba pare xanaa kon man maa ngay bàyyi xel bërëb ba waaye bu ma defaree ba pare yóbbu ñu ne télé ba ñu ne dawul. looloo tax du ñu gis kon sa série yu bari. waaw loo looloo tax. looloo tax du ñu gis sama série bari ci TFM. yu bari ci TFM. ak ci yenen télé tamit. hein ay euh, yenen yenen télé mom ma mom man man ma ma déggoon mooy li ma wax sank ma ngi tourner ma ngi tourner mhm. déjà bay ganar actuellement ñi ngi def bande annonce deuxième saison bi. Mhm. ba deuxième saison bi ñu ngi koy tourner te buñ ko défé ba pare dinañ ko jëlati yóbbu TFM mhm. comme dañ défon ci première saison dañ koy jëlati yóbbu TFM yóbbu ba ca ñom won leen. buñ jëlee mu daw ci télé bi buñ ko jëlul mu daw feneen yeneen yi ma nekk ay projet yu ma nekk di defar mhm. bu pareet ma jël yóbbu TFM bu nu jëlee mu daw fa bu nu jëlul mu daw feneen d'accord waaw 52 morceaux pour convaincre ci 52 semaines 52 singles 12 bu ñu kenn yëram waaye nañu suivre ku déglu dégg ci kàttanu yàlla